bi li ko waral mooy soqee koo Kayoor parce que bu ñu fal pa paalen dédd motax ñu wax fal bo santuloon Fall doo mën a nekk Damel évidemment di nga ni mais la jor day santul fal c'est vrai la jor santul fal mais yaayam la tir fal ci nonu men lañ ko falé Damel mais Damel pour ñu faral la ko ci gëñu lay doon. Tiguéño Fall lay doon mais nag Ngoone Latiir Fall moo tax ci meen ñu fale ko Lat Joor Ngoone Latiir Diop Damel du Kayoor. aw Abdou Dior Fall ah mi ngi wàcce ci damel bi ñuy wax Déthié fa Ndiogou Fall le premier damel moom nag ak euh, damelam yàggul maanaam. am ñoo sax ni 6 jours le durée après nak ci la ko am ri ngone sobel fall wutu ci damel gi wa abdou dior fall nak mi mom, nekkan na lamanu xonjo manam boy wax konyo wax xonjo xonjo fele ci wet gogou genre territoire la bo xamni mom lañ ko denkal ni ko yaa koy ci mbay la doon ak sam ay samam samam ay get ay bopi nak à plus finir le won ndax bi mi ñew fi ties ndax tubab bi ak usine yi exploiter nañu terre yi fofu di génné phosphate bi amatuñ fu ñu dëkk dafa ñëw fii fii ñu nekk tey fii ngeen may interviewé fi la yaman moom avec son bétail ak juróom gi mu yoroon yëpp nag léegi moom mënu woon a nekk ci biir dëkk ba mu ñëw à la périphérie installé wu fii tàngoor jur génn nekk fi kër sëyib geneen jur gi nekk fi lépp ab àll la woon waaw donc euh, c'est un homme ku euh, bari woon yërmaane bari woon entraide bari woon esprit de euh, de sincérité. am Cheikh Ibrahima Fall ah, bu toogan damee lay doon genn Fall gi la waaye maam Cheikh Ibrahima Fall dafa toll foo xam ni yàlla moo ko feeñu muy wër Sëñ bëgg sëñ Touba jéblu ci moom moom mu jël diine liggéeyal sëñ Touba nekk priorité mu dumooyu nun à l'époque ceddo gi waaw li ñuy wut sax surtout ci ndaje bi mooy jéem a dekkal sunu cosaan lan mooy sunu démb sunu doom yi sunu génération yi di ñëw war a xam lan moo nekk seen histoire wu baay seen histoire maam donc chaque fois bu ndajee aussi euh, dañuy expliquer xale yi suñu origine ak suñu valeur lan la won waaw valeur mu ne valeur mooy ngor nous sommes en sociale but bi comme ni ma ko aussi janvier déjà désigné nañ ni Mbour moy ça veut dire que la famille FAL est un peu éparpillée un peu partout évidemment quand on dit Fall nous nous sommes des descendants de Gëjoori Gëjoori donc comme le président bi aussi dina expliquer mon moma gëna xam lolu mais y a les fans aussi qui sont nos parents hein. donc voilà un peu l'historique